ku xam Baol production defe naa ca stade Assane Diouf Talla Ndiaye ba Iba Mar Diop stade Diomba ba stade Demba Diop ba Léopold Senghor ah macha allah daaw de bëgg naa la. waaw dëgg la yow maa ngi ziar baax a baax. ci loolu naka koor gi. namm la rek macha allah. def ay teranga ñu bokk ñun ñëpp day wane rek ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te ñun ñëpp benn lan moo tax ñu invité ñëpp toog waxtaan ñaanalante yàlla def jàmm quoi parce que lii lay jër parce que ñoom itam. xam nga doomu aadama bu fekkente ne saa boo xewloo boo gëstoo gis ko te doo xaaru ci yow dara day jaaratu benn jour ngeen toog yéen ñëpp ngeen kenn ku ne génnal la ci sa xol ñu waxtaan jàmm kafre et puis Sénégal jëm kanam loolu la rek quoi noonu rek lay demee mais macha allah daal. <laughs> ça va Babacar. ci loo ne. maa ngi nii ça va bien. diggante ah, la sama xarit lépp la. Mhm. looloo foo gis Assane gis fa tey mu mel ni kon yaa doon togg bagage yi de. waaw gis nga man la de maa fi ne merci beaucoup kon neex na ni ah waaw gis nga première dama ma yónni mooy naa def ni sëy gi fekk mu voyage yi looloo tax ma teew bu suba fi nekk rek mel na ni sëy gi nekk na fi mhm. looloo tax merci. Ndiol maa ngi lay ziar. jaajëf bu wér a am jàmm. sant Serigne Fall bu wér. yow it loo may wax si Assane Ndiaye. Assane est-ce que man mën naa ci lu bëri. oui Assane dañu yàgg trop man moom depuis 2003 Assane Diouf ba léegi man ak moom yàgg na waaw mu jox ma cër boo xamante ne bii xam nga yaa ma gën a xam quoi ma nekk salle de vente xam nga taala xam na ci dara loolu yàgg na trop man ak sama benn grand frère Birahim mais nit la ku baax quoi. Touba man maa ngi gàllem chaque màggal fa laay nekk waaw chaque jour maa nga fa maa booy mbëri awa mi mais loolu lu nekk la quoi. ma ciy nuyuwaale Lamine Seck sama rakk sama xarit sona si maa ngi lay bëggee. ça va. tur bi nan la. Khadija. loo may wax si Assane Ndiaye. lu ma lay wax ci Assane non Assane dafa baax rek mu invité ma nagu ma ñëw. Mm-hmm. Mm-hmm, loolu la. xanaa ah, ah, tukulóor nga. <laughs> non non même pas du ma tukulóor. kon de joolaa nga. <laughs> waa Touré laa sant nag. joolaa nga jaamu séeréer. <laughs> waaw la. Mamadou Lamine bëgg naa la. waaw ziaroon la grand. leen fi woon de loo mën wax si Assane tuuti yow itam. Ah, Assane de wax dëgg yàlla moom ku baax la ko vraiment sunu xarit la sunu mbokk la waaw bu ñu woowee rek dañuy ñëw. vraiment te it aussi kontaan nañ ci moom bu baax a baax amul benn problème waaw ok <laughs> jaajëf. <laughs> Cheikh Diaw a ngi toog ak El Hadj Ndiaye moom mooy monté combat yi defe naa Cheikh maa ngi lay bëgg. Babacar maa ngi lay ziar. Cheikh Diaw coach Rebeuss wala staff Baol production. loo wax bu baax na naam Cheikh rek. naam Cheikh waaw. Euh, tey yaa ngi toog ak sa doomu ndey Assane Ndiaye mu mel ni mu tëgg yëpp yaa koy faral taxawal suma juumul su su petit combat yi. waaw loolu dëgg la la sama xarit la sama doomu ndey la waaw loolu moom dëgg la ñooy taxawal combat yu ndaw yëpp waaw waaw. non neexul sama lépp la wax dëgg yàlla boo ma bëggee jot rek tuddal waxal ci moom lu warul. dañuy rayante man a yow su ma xarit la dafa bokk ci man waaw waaw oh, loolu dëgg maa lay ziar. waaw ah, kër maa ngi ngi si jàmm. maa ngi si jàmm baax a baax. waaw yow tamit defe naa fu ñu gis Assane dañ la fay gis des fois de. <laughs> waaw loolu dëgg la moom Assane Assane moom gitu ñoo bokk papa ay seex lañ ñaar ñoo bi ñuy feree lañ en commencé man moom ba jamono yi tey ñuy wax kon man nga ne suñu ñaari papa yi ñoo bokk papa benn lañ ñaar man maay moom moom mooy man. lu metti morom ma rek xam nga rek ñu naan lu dagg morom ma lay fekki loolu moo ñu boole. <laughs> jaay Babacar seetaan nañu. kon nag gars yi comme ni ngeen ko xamee rek dégg ngeen ñi wax ñëpp ay copains Assane yu góor ak yu jigéen mu mel ni ànd boo gis rek taala bu ko dëgg lalee rek mën naa dem sax ba ba bufta bay wala yàlla nañ ko yàlla defal diggante yëpp yàlla lay tax ñu koy def maa ngi lay ziar Assane. Babacar maa ngi lay fay di sant yàlla bu baax di julli ci bi di gërëm sama ñaari waajur maa ngi sant Serigne Touba bu wér am naa mbégte lool tey jii kontaan naa trop tey jii ñi ngi ma fekkal nii mën naa leen ne 2004 ba léegi maa ngi ñoom ñooy ànd kenn mosu si changé suñ ci amee lenn lu leen metti rek man maa leen ko def mais man mosuñu ma ko def donc ñii dañu dañu dañu sore ci man tey ji tey jii def naa émission bu nekk mais bii ma def ak ñii moom moom moom moom dafa dafa dafa ci man billahi wallahi parce que retrouvaille la ni ma leen déggee ñu réagir ñoom ñëpp ah, dafa mel ni lu yàgg la comme ni nga ko waxee 2004 ba tey ay góor ak ay jigéen. non kenn lañ maanaam ñoom ñëpp kenn mën na wax baat bi benn lay doon waaw ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñii nga gis ni tey jii koo ci laal rek laal nga ma boo ma laalee rek laal nga leen. wallahi lazim am na am naa mbégte tey loolu sama xol sedd na trop waaw trop tey ji waaw. kon looloo xew Diourbel Talla Ndiaye léegi ñu ñëw ci tamit Dakar après Diourbel yaakaar naa yaa ngi indi euh, booy Baol ak Marley boobu foo ci toll actuellement. waaw boobu combat amateur yëpp moo koy xaar Boy Baol Marley yaakaar naa ne ñoom ñaar kese bu ñu leen boolewoon Iba Mar ak parrain bi rek feesal na làmb ji mais bëgg xoli amateur yi sedd am mbégte moo tax ñu jël combat yu yéeme def ko ci biir ku mel ni mbaytin bu école Mor Fadam ak Libidoor bu Ngunjaan ci la bokk ay Liss njaago ay euh, Ahmed Lagros caatu montagne caatu montagne bu faas gis nga la muy traîné ci mbooloo ca la bokk xam nga ay caatu rëbës ay nëb ca la bokk donc combat la 16 moom combat la si biir combat amateur boo dëkk loxo na ko la 16 lii mooy xew Iba Mar Diop day am mbégte lool maanaam daal Gris de Reug Reug bu jeexee Issa Diom Iba Mar lañ koy waxtaane si non dañ ko fay samp dara du yo dara du bougé si kàttanu yàlla le 16 dinañ xam ne làmb la ci biir làmb yi Babacar incha allahu rabbi ma tudde ko nag doomu Medina muy Bamba Fall sama mag sama xarit gën ma bëgg événement bi nee na dafa am cinquantenaire Medina daf koy fête euh, ba tax dix mais dafa jëlaat di combat ku nekk mu am famille bu nekk mu jox la drapeau lu yéeme Babacar non dix dix drapeau lay nekk. mbër mu mbër mu bëre daal am nga drapeau boo yóbbaale. mbër mu bëre am nga drapeau boo ku daan am nga drapeau bu lay boo yóbbaale famille moo la koy jox kon. mbër daa bëgg drapeau. mbër drapeau rek la bëgg loolu Bamba Fall def lu yéeme la donc loolu rek soo ko boolee ak li war a xew no day yéeme si kàttanu yàlla. ba pare dinaa fa indi ay woykat pour ambiance ñoo xam ne comme bu ñu jógee Diourbel dañuy joxe waa Dakar ndewenal si incha allah rabi waaw loolu foog mu am. léegi ñu jóge waat fa dem ci Boy Baol non dégg ma ne booy Baol sax double moteur ak ki nga xam ne moom mooy fëgg la loolu tamit foo ci toll. waa loolu pare na incha allah rabi le 7 euh, juillet muy drapeau maman Aïda Mbodj kooku sama yaay la sama. lépp la sama kilifa la fukki at ak juróom lañ ànd duy caaxaan fukki at ak juróom at bu nekk am na drapeau muy fukki drapeau ak juróom loolu loolu mun naa ne moom dong moo ko mos a am senegal ànd nañ mu neex ànd nañ mu naqari te terewul ñu ngi continuer ànd muy gën a neex muy gën a am jàmm ma koy gërëm di ko sant dafa may taxaw fu ne moom Mama Aïda Mbodj su mbir mi dëgëree ba dëgër wala mu ñàng ba ñàng moom nga mën a jot ne ko waxal Assane nangam mu woo ma ma def loolu kon kooku am na fuñ luñ am na fuñ fuñ fuñ fu nu yàlla boole ma koy gërëm bu baax a baax a baax événement la boo xam ne spécial la ndax arène nationale laa koy yóbbu yóbbu naa ko fu ne stade bu nekk yóbbu naa fa Mama Aïda Mbodj nationale laa koy si kàttanu yàlla dina am aussi cinq quatre drapeaux yu mag yu ma cay teg quatre grands combats laa fay def ak six combats yu ndaw waaw bëgg nañ daan Babacar wane suñ bopp gën a wane suñ bopp gën a jox amateurs yi li ñu moom parce que amateur daa am luñu moom nit bu jëlee xaalisam financé ko ci sa làmb bu ñëwee war naa am lu mu seetaan war naa am lu sedd xolam waaw bu sponsor jëlee xaalisam jox la war nga ko wan lu sedd xolam boo jëlee parrain jox ko euh, jox ko nit war nga ko jox lu am solo ci loolu la ñuy dund ñaan yàlla li sumb yàlla mottali ko si jàmm Babacar. léegi fi ñuy jeexale mooy diggante Assane ak promoteur yi. Hmm. wala sax balaa ma ñu si diggante ak promoteur yi tamit loolu ab laaj la bu may for ci mbedd mi asan Dia dafa am ak Balla Gaye <laughs> xarit la. Euh, mbër yëpp samay waay dama cee jaar ak ñoom fu ne mbapat dama mbapat ak ñoom ñoom ñëpp. ñu Balla Gaye 2 ñoom Modou loo ñoom Tapha xam nga ñoom Ama Baldé ñoom Sa ñoom ñëpp am na fu ma jaar ak ñoom mais Balla Gaye 2 dafa am benn spécial bu luñ seq. comme lu mel noonu. Euh, dama amoon benn sponsor mu proposé ma mu proposé ma benn publicité ci Balla Gaye 2 yaa ngi dégg ma woo ko téléphone ànd ak Mao Cissé dem fa euh, waxtaan ak moom expliqué ko produit bi. mu ne ma Assane séq nañ loo xam ne dinaa la ko fàttali tey bëri naa Assane Diouf samedi ba sa kontaan bi may ñibbi comprendre nga kon doo andi fii benn publicité ma lay laaj xaalis xoolal loo man nga jox ma ko ma def ko comprendre nga man am naa kersa ne ko nag nangam laa man ndax nag góor gu ne góor la ñu toog lu ma dix minutes kenn waxut ma woo maa aussi sa si bitti ne ko nag dama bëgg nga wax ak sa waay man mënuma lii ndax nit nag dool nit doo ko jël jox lépp mu jël lépp jaar naa foofu ak moom bu ko neexan ma ñëw mu ne ma danga may fay temps mais xoodul loolu donc kon li mu def noonu tuuse na ma trop gor rek mooy fàttaliku démb waaw sama xarit la sama waay la waaw. kon xam naa lool moo taxoon gars yi ne da nga ko doon jàppale moog Modou non non jàppale wu sax Modou man maa ko jox publicité euh, aussi jéego sips jéego maa ko ko jox ñu waxaale ma ne ko mbër suñu waxaale publicité bi nangam laay am mu nangul ma loolu aussi ma jox ko publicité bi ñu liggéey ci aussi liggéey bu rafet man aw kenn xaar ma yàlla ndax bëgg naa heure bu ma soxlaa wala ma jóg rek dem si kaw nit. diggante Assane ak promoteur yi. waaw samay doomu ndey lañ man yaakaar naa ne aw ma nit ak frontière. dinaa jël sama lépp jox la ku mu mën a doon ci promoteur yi sama lépp laay jël jox la ñu bokk ndey bokk baay su ma la ko joxee nag boo ko xamul ma jël ko te dootuma la ko jox yaa ngi dégg samay nit lañ maa ngi leen di nuyu bu baax rawatina association de promoteur bi ma bokk jël nuyoo bi jox ko Pa de Fall mu tasal ma ko gars yi di nuyu suñu jigéen soxna Ndeye Ndiaye Tyson di baalu ak Sénégal yëpp di leen baal di nuyu nag waa diaspora bi bu baax a baax a baax dañuy topp làmb dañuy dund làmb sama rak yi sama jarbaat yi sama mag yi képp ku nekk Europe rek maa ngi lay ñaanal ci barki Serigne saalim lépp loo fa wuti yàlla na la ko yàlla defal jàppale la ba nga ñëwaat sa réew investir ñu ngi leen koy ñaanal soo gisee ñuy def ay làmb ay direct wala ñuy bàyyi comme Leewtoo TV di def ay direct ñoom ñoo tax ndax bu nekkee Europe doo suñu am lu leen wetti lu làmb ji moom lañ xam moom lañ bëgg kon faw ñuy def ay direct faw ñuy def ay léewtoo di waxtaan ak ñoom lépp lu am nag pour ñoom pour dina leen ko jox ñu bokk ko nan ñu ñaanal rek ñu gën a am doole gën a am lu ñuy tëggee combat pour bëggal Sénégal. Assane am na métier. bu baax. ban métier la. man fer laay jaay défoncé. commerçant lan maanaam. la fer laay jaay fer bâtiment. ciment seng bac cornel tool lépp loo soxla am naa ko. kon de nag ñu may ciment bu bari te boo paree nga fay ñu publicité ak waa Ndiaye. amul problème man xam nga nit dangay am métier man lu ma am ci feer yi pàcc défoncé lu ma fa am dama koy at Sénégal dama koy tëggeewaat làmb wallahi lazim dama bëgg réew mi bëgg làmb kenn ku nekk fi nga ne. secteur bi nga nekk yaa fa mën a taxaw dimbale président jàppale ko mais gëmuma ay nañu président dimbale man gëmuma loolu ku ne yaay def effort nekk ci li nga war a nekk ba nit ñëw jàppale la wala président ñëw jàppale la mais xëy toog naan président xëy toog naan réew mi neexut noo gëmuma loolu man. gëmuma loolu Assane ñaata soxna la am. non benn la am. di takk ñaareel. non am naa benn boo xam ne moo gën fukk. yaa ngi dégg. ndax di nga takk ñaareel. may diglu ma ñëw. ak naan ma wuy rek. am naa benn boo xam ne daa daa gën fukk. ndax di nga di ñaareel. da diglu ma ñëw daa am benn yoon bu may jaar. am na am naa benn boo xam ne naa benn boo xam ne moo gën fukk. yaa ngi dégg sama xarit la sama rakk la sama lépp la mais dinaa takk ñaareel bien sûr su ma gisee ku mel ni moom yërëm ma ni moom jàppale ma. comme ni ma jàppale dama koy tàkk ndax metti woon na torop lu ma soxla lu ma bëgg mu si dox te sama yaay fukki loxo juróom te man sama yaay rek laa am ku ko jàpp ma jàpp la ku ko bàyyi ma bàyyi la mais man moom boo ma gisee di nga xam ne du ma góoru benn jabar duma ma góoru ñaari jabar ñeenti jabar laay am lu leer laa lay wax incha allah naa ci yow jaajëf <laughs>